kon nga baal ma rek man ma yëkkati kàddu gi gërëm ak sant surtout jamono bi ma suñu ñëw gërëm la yow sant la gërëm njaboot si jaajëfal bi ndax soo ñu dénkee njaboot bi mënu dénk foog naa ko keroog ku ma la sëñ Maodo mi sax waaye sëñ Mbaye sa turandoo doomam su wéetoon nag yow ni la d'accord ma ci tànn bi nga tànn bi sax nga génn ci ndax orma bi nga am ci njaboot si jaajëfal donc soo ñu dénkee jàpp nañu njaboot bi yëpp moom moom dénk donc sëñ Maodo ak ay rakkam sëñ Mansour sëñ Baye ak seen sëñ seen jarbaat yu baax yi ñu ne suñu jamono yu baax yi donc comme ça mu tudd lépp ku ci jamono sa taxawaay pour ñu composé njaboot seen arrangement bi yëpp ku nekk ñu jaar ci ak ci sant waaye xëy na jotaay bi mayoo ko daanaka ci plateau yu gën a yaatu comme ça mu ne yaatu mais ci turu jamono bi yëpp ñu ngi sant njaboot seen arrangement bi leen gërëm te dalal gan yëpp di ci seeti premier ministre de la république du Sénégal bi toog di Ousmane Sonko di kontaan ci ñëw bu mu fi ñëw bi di ko rafetlu ndax ñëw na bokk bisu bànneex ak ñun bisu sant yàlla bi ak ñun wane ni kër gi këram la ndax dégg a yoon ñu wax ni surtout El Hadj Rawane Ngom la surtout El Hadj Rawane Ngom man kenn ko dala ci Tivaouane man moo ko wax dala waa dala def ci Tivaouane ci bu ko mën ñu nekkalee El Hadj Rawane la woon ak seen hachement bi ku nekk ci kaamil bi mu tàmm kon monsieur le premier yi nga ànd ak yëpp di gërëm di si seen teewaay di di ko rafet ci turu mu ak sunna yal ko àdduna ak àllaaxira di gërëm di la ville ñu yóbbaale yeneen autorité yëpp ak le ba léegi ñu yóbbaale autorité administrative yëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ko liggéey bésu bésu tey bi ñëw mu doon bésu xat-xat xam ne mu ko bëggoon yaatale ci ñëw ci fësal ko ci jaar ci ku nekk nga xam ne loolu ndax bu ma commencé ba léegi man naa leen salaam si yeneen ministre mais su loolu ma daw ma ci gàtt dama leen bàyyi ak liggéey bi ndax loolu la ñu borom dénkoon liggéey leen ko génn ci bakkan te te noppi bu mu sotti ak jàmm te def na tey nag mu sotti bisu sant yàlla la bisu gërëmante la bisu kontraante la woon nga loolu def def xaj mais daan dem toog ci plateau télé yi def ko su ko defee comme alalu mbooloo la ñun ñëpp dénkoon la mu leer bi si ñëpp ndax daal liggéey bu mucc ayib bi ci wàllu organisation ci wàllu gouvernance lu mat fukki entreprise ak ñaar liggéey ni ñu amul kenn pour sélectionné sur la base d'un appel d'offres amul kenn ci ñun entreprise yëpp nañ ci ay entreprise sénégalaise utilisé plus de deux mille personnes par an trois ans CDD entreprise bi am trente entreprise yoroon bu bi mais décoration bi entreprise turque di kamis ñu doon utiliser plus de deux cent ouvriers turcs di lay ouvrier sénégalais jàngal leen décoration ba tey ñoom suñu ñibbee bàyyi leen ñooñu war nañu doon continuer def bu mel nii beneen entreprise bu mag bu bi tout ce qui est ali ñoom ñoo ko def c'est des Tunisiens mais installé au Sénégal mais globalement toutes les autres entreprises ba ci côté climatisation bi et GIE c'est des entreprises sénégalaises le maître du projet c'est un Sénégalais c'est El Hadj Malick le chef du projet suñu ménage sénégalais de la FSB émission yi Bokar Ndiaye Raj Malick Sarr ak Khalifa Badiane su ma leen tuddee mu yóbbaale ñu ci ñëpp ak ñu tudd suñu secrétaire exécutif nga xam ne mën naa ne moom la cheville ouvrier du projet bi Ibrahima Famara Sylla su ma leen tuddee mën nañu yóbbaale ñëpp ñëpp toogoon bi bu yàgg mais am na ci ay personnalité yu ràññeeku ci seen alal ak seen xalaat taxaw ku ci mel ne Moustapha Ndiaye donte ni moom kenn mosu ko ñëw gis rek ñoom dal nga Moustapha noonu lay dundee yàlla na ko yàlla fay Abdoulaye Ndiaye noonu Aziz Ndiaye noonu euh, ak Cheikh Seck noonu Baye Dame Mansour noonu moom dafa jaayante woon ñu jaram na ko ba këram mu jaay ko yàlla def na fekke wu moom ak ñu jiitu ñëpp fa laaj maas mbay mi ñu leen ñaanal yàlla xale leen ajjana ñu suñu baay yu baax yi suñu mag yu baax yi àndoon àndoon ko ñu ko yàlla def fekke wu mu bésu tey bi mu yóbbaale ñu lekk ñu yëpp mu xàddam yi kër ku suñu xaar maam rawan mu premier ministre boobu tax ñu ñuy wax donc loolu diaspora bi daayira yi kiraan am na jiir fàttewuñu kenn bu toogaatee lu gën a dal dina gën a yaatu waaye bu gën a xatal xalifa bi na ko pare waaye nag di seet njaboot bi nga xam ñoo àndoon nañu ci projet bi si Hadj Malick rek mais bu ñu futtee ko ànd ak ñoom bu dégg-dégg mais maam si Habib am na ko ñu Cheikh si dem toutes les missions yu ñu def à l'étranger pour prospecter pour ay fournisseurs nga xam ne suuf suuf loolu suuf propre ñu ko doon defee ndax bëgguñu woon taalibe di dugal ci keesu jamaa bi ñu siy jël di dem di ay fournisseurs wala di prospecter bépp mission bu ñu dem na jënd suñu bopp doon àndal ci bu ñu Turquie bu leen di démarché di def appel d'offre ak des sociétés turques moom la ñu àndaloon menuiserie bi bu ko gañee ci appel d'offre loolu ak benn chinois moom la ñu àndaloon dem suñu si moom la ñu di ko gañ ñu Cheikh si tamit rab seen Maodo tamit bi waaye ñu ngi àndaloon aussi ak Maam Alpha Si Papa sa rab seen Maodo amul réunion bu mu taaxee fekk na tànn bi lépp moom Pape Hamid Si nga xam ne wax naa ko moom c'est le seul président de commission bi sëñ bi tànnal boppam ni la yore communication démarche mu ànd ceeg ak assistement femme bu baax bi ak suñu bàyyi Mansour Mbaye moom donte ne ñëw fu mu toll ñu si commune bi waaye di gërëm Mansour Baba mooy suñu ambassadeur moom Cheikh suñu Cheikh Tidiane fi leen soxla lu jóg ak sëñ Habib fàttewu fàttewu fàttewu ñun ñëpp daal di gërëm di sant di ci télévision yi di wax baykat yi ñoom Abdou Aziz famille Moussa Allé Baye yëpp daa bëgg ñu ànd ak Mansour seen mag Baye Sam parce que Baye Baye Donte ñoom guddi kenn kenn desul ñu di plateau yi ñoom Babacar Niang Oustaz Diatta Asfiya Malikia El Hadj Makhtar Ndiaye Mor Mor Ndiaye moom war nañu ko jël moom boo xam ne bokkul suñu Babacar Sy dafa def boppam taalibe def boppam maam actif ñu jàpp ne guddi ak bëccëg donc wax mbir mi àgg fii donc ñu ngi gërëm ñëpp ku déglu sa tur daal ak sa structure nga xam ne district amoon nañu ko amoon leen wax ko ci mbooloo mi mais yàlla dafa dogal ñu la demee ñu terminé rek par rapport ci imaam euh, am jumaa ju ñu julli wala programme bu bu def te woote wu ñu ñaan ñaanuñu pour pour jàkk ji ak jàmm salaam ñaanuñu pour contribution yi ñu ba ci village yi bàyyi wuñu kenn donc suñ ci tuddee imaam nekk jantal ci zone si njaajumaa bi di Dakar ci ci waaw bu baax ñu tuddee imam Moussa bi nekk imam sëñ Baba Bersi day yóbbaale ñu ci des suñu tuddee imam Ousmane Diop ca Dakar day yóbbaale ñu ci des moom imam Ousmane di beneen gërëm ak nuyoo imam Aliou Samb Moussa Samb imam Grand Mosquée nga xam ne ko yitte ak taxawaay bu mag a mag ñoom ñëpp daanaka yàlla na yàlla tey moom moo leen ñëpp mais encore une fois ñu ëpp ci solo dafa war leen ñaanal yàlla sama wàll bu mu ko jël seen mooy waa jamono ndax ñoom ñëpp alal si sa temps si sa temps si sa taxe di suuf ndax wax naa keroog nekk ci projet bi nan nga fi ñoo xam ne dootu nangu sa kër dootu nangu si ngeen liggéey mais nan nga ko def jëmu say engagement yi nan nga ko def jëmu suñu borom ba muy tabaxal ñu dëkk ndax lii wax nga ko bu koy tuddee si engagement yi mais su pare turu yàlla lay jëm kon comme turu yàlla nag yàlla boobu moom moom dajale am na vision yu jóge fi nekk kenn xamul ci seen dërëm dërëm boobu nag sàmmoon nañu ko joxee résultat yi wax na liggéey bi day continuer joxe nañu ay les visiteurs bi suñu def ay finition bi nga xam ne léegi ndaw ndawal ñu ngi am benn relation ay ay ay fournisseurs yooyu moo tax ñu continuer di di jaay pinsil à deux mille francs ñu doon barkeel pour taalibe di ci yaakaar ndimbalu état bi ci yaakaar ndimbalu président Diomaye Faye bi di woo ñu di gërëm di ko sant ñu gis ñu disposition yi ko jël ay monsieur le premier ministre soo toogee mën nañu yemal wax ci yow donc mbir naa ko seen mbir la ndax Sénégal lu mu fi def lu jëm ci diine war ko jëmmal état bi def war a taxaw sant taxawaay bu leer ndax damay wax ne tubaab yi dañoo réew i cathédrale ba ko séparé mun nañ tolloo gën a a ba communauté yi war na gis ay soxla yu kawe gis ay jàpp yu rafet gis ay alxuraan mat gis diine yu rafet loolu nag mag ñu déggee mu am si biir dina ko yàlla sàmm wala barkeel ko te yéen lu ci sotti ñu sottee seen ndax ndax yéen a yàlla yéen a yàlla teg ci bopp réew mi dana leen ci yàlla jàppale da ngeen ci war a sotti di ngeen sotti su ma waxee nag ba daaneel ay gërëm na sama ñaari yéen naa yi may accompagné ko benn bi moo nekk mbéy mi di fekk réunion yëpp ma taxaw ak Paa Paa Maxtaar Kébé dana am jam-jam maa ngi leen di tudd di leen sant di leen gërëm di gërëm di sant njaboot si jaay maa ngi yëpp si man sama soxla na jaar ku nekk seen seen dinaa ko def ci télévision bi léegi incha allah dama bañ a teewaat sëriñ bi yàgg yàgg donc symboliquement ñu war ko jox caabi bi mooy wax ne nag jéemulu def dara lu mu warul def wala topp ndoobu la ñu róolu ak kenn ñun yonent bi duñu ko royloo ci sut si daal maa yi njabootam xam ne ni te royloo ko ci ay tabax wala ci leneen ci cukk mënuñu ko royloo mais yàlla dafa def ni soo nekk ci lu baax laa ci mbiru ku yàlla gërëm gërëm loolu suñ daara basi ma waxoon laaj rawaan bi ne àdduna mu ngi jàpp xamal leen bu baax laaj rawaan ko yàlla gërëm la te du laaj ci mbiru ku yàlla gërëm yàlla boole na ci gërëm loolu tam loolu conscience am de combat ci dañ daa bëgg a seet kon ndax man koy nekk kenn koy sëñ xam nañu moom moo ko wax bu dëgg donc duñ doon wër rek muy ay ay takk benn imam nga xam ne xëy na yeneen communauté sax la bokk bu sant ñenn nekk imam rek laaj lu mu doon laaj rek bu laaj ndax ngeen takk ñun ko amagun takk bu ñu wër man sëñ Abdou Amin nii ànd nañu ba ambassade di rendre ay tapication am na délégation bu ñëwee woon surtout ñun ay takk ñuy dem Maroc mun ma man de xam naa kuy liggéey ci usine bi defaral bi kaaba di almi dana ko mën a dafay jël am na Sénégal am na yi macha allah foo dem ne ma am na Sénégal yi dafay liggéey ñu boole noo kooku ñu jox ko moom ay femmes la dox ci ay mut si dox ci ci ñu ci numéro président de la République bu fi nekk Macky Sall jàppale nañu ci lu bëri bëri ñu ko di sant mu des nag bu ñu doon posé symboliquement ban caabi ñu mën a xaw ma Abdoulaye Diouf Moulay mi ngi di jàmbaar bi kenn ci projet Moulay Mbaye Moulay Mbaye sa bopp monsieur le premier ministre am na na ci taxaw ci dem na tuuti dem na fu nekk tur bi su ci ñëwee am na lu ci bëri ci moom la jaare donc defar jaar am na ci artisanat ah kooku nag mooy daj de moom yàlla dimbali mu dem fa mu ne mënu ma leen defaral bu tolloo caabi kaabu bi waaye mën naa leen defaral en miniature mun te alhamdulilah ndax tolloo kaabu bi xawul wóor sax donc ñun miniature bi doy nañu si la ñu tëggalee bii ñu yore parce que yéen a jëmbal sëñ bi nu ko yàlla barkeel nu kaabu bi barkeelee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi président Mouhamadou Mokhtar Cissé mi ngi jox caabi bi Serigne Babacar Mansour caabi mu fekk ko Seydi El Hadji Malick Maodo a bopp yéen a ko gisal seen bopp caabi jaa ngi nii tabaarakallah Seydi El Hadji Malick teel sa beneen loxo jërëjëf ana pem waaw ñu ngoog macha allah waaw kay nee na kontaan na bi mu fekkee lii nee mi ngi koy yëkkati nag di ko jël di ko nangu ci turu président de la nee nag xaw naa gis nag sëñ Mansour Bakirou macha allah waaw kay caag waaw sëñ Moustapha bu xalifa bi techniquement ci techniciens yi la bokkoon waaw daan toog fii di fënd di poussière waaw sëñ bi nee na Muxtaar nee ñu ngi koy gërëm bu baax ay caabi jaa la bay amit bay jërëjëf nag ñu ngi lay tàllal nee na ñaan yàlla yàlla ñu fekk bés bu ñu koy julli am na suñu benn mbokk di mbokk kër gi Mouhamadou Moustapha Kounta ñëw na ci turu xalifa bi ak ci turu boppam Oustaz Dame Ndiaye itam imaam bi ngi fi ak ànd ak imaam yëpp mbokk yi léegi nag xalifa bi dafa bëgg a ñaan ne sëriñ Samb Sougou Touba mi ngi fii imam Ahmad Dame Ndiaye ànd ak im ayim olama ayima yëpp ñu ngi fii imam Ndiob Fall ak bismillah nee daal li ñu fi tëgale woon yëpp mooy lii mooy caabi li ñu doon liggéey mooy andi caabi jumaa ji daal koy joxe nee loolu nag sant yàlla rek la Cheikh Oumar nee gërëm leen ba ñu ko dooree ba tey nee li war ñu wax bu ñëpp tëb ñu nga tooy lu ji nee kenn ku ci nekk yaa xam mille francs wala cinq cent mais ba léegi nit ñi ñu ngi continuer di joxe seen xaalis li ñuy joxe du fi jóg lu dul ñu mottali liggéey maam Seydi Hadj Malick bii neefe bii dañ ko doon officialisé la waaye waaye liggéey jeexul des na tuuti moo tax ñu doon joxe ñu ngi leen di sant gannaaw yàlla yéen yéen yàlla yàlla yokk leen yàlla yàlla dolli leen sutura yàlla na yàlla dolli jàmm mais bunti xéewal yëpp yàlla ko yàlla def mais tey daal dañ doon def rek officiellement joxe caabi joxe nañ ko dégg ngeen président de la république bi fi jiitu da ngeen waxtaan

moom moo defar décoration bi ak menaade bi nit bar bi nit bar moom ñoom ko defar décoration bi ngeen di gis ci kaw ñoom ko defar ak nit bar bi ñu jiin bu tuddee rafet moom xam naa lu defar war naa mën a rafet ñooñu bu ñu xëyee ñu ak sëñ marhaba marhaba dañ ko sëñ bi yow waroon nga ñu ma woon daal loolu ay ci loxo di ma dara ñu bokk yi nañ ñaan wax na tabaarakallah rakkam bu baax na ko dégg nañ kontaan nañu ñëpp seen xol sedd yàlla yàlla fay ñëpp te yàlla bàyyi ci sëriñ bi guddal fanam yokk wér xalifa bi ñëpp a ngi lay ñaan yàq seen lii ngeen ñu may ci xéewal ji yàlla ko yàlla boole woon na ñëpp tàllal wax amiin Maodo mu ngi nga ñaan nee na nga dimbale ko rek si waar nga ñaan wax leen amiin wax leen amiin ñu wax amiin